taalibe Cheikh yi waay ku sopp Serigne Babacar mel yee tey aawaa dama ni sa morceau bi daal man jaaxal na sa morceau bi daal lakkal na ma wii sa morceau bi moom man daal jaaxal na ma xaw ma loo ci def xam nga nag yàlla dafa boole yow voilà yàlla dafa dogal bi su lu ma laal rek góob la moo tax morceau bi Orang Sénégal waaye dina toj am. lii rek. waaye kay ma wax ni sama doon ko jàppee saa bi. arab bi moom boo paree mën nga koy may. ba jàng sàkk doon mën na ma laa bëgg dia mën na ma laa xool sax parce que Serigne Touba dimbali ma rek. bàyyi sagal bi may sagal. li ma sol yëpp yaa ko doon dégg. barke na bi Moustapha. billaahi li ma sol ci kaw ba ci suuf. non taay bàyyi sagal bi may sagal. li ma sol da ci kaw ba ci suuf laa la wax. yaa ma ko def démb ci kanamu gaay. da nga loolu nag. waaye tàccu leen sama mag ñi waay yéen tamit nag tàccu leen ko waay ah man ak moom c'est une longue histoire je me rappelle euh, amoon na jamono dama daan bëgg di baali waaye du ma am jiin bu bu cher damay ñëw fekk ko mu lem bay waaj a joué ji ànd ak suma papa ma jël jiin bi sam ne ko ama ji dafa am fu may ngi ñëwaat mu ne booy damay dem Kilimanjaro mu ne ko maa ngi ñëwaat léegi léegi après une semaine après damay gis daf may wër ci mbedd ba gis ma suma ma xoolee rek dama man xaw ma nu ma lay def ko kon ma bëgg ngeen tàccul ma ko bu baax a baax baax baax a baax. jërëjëf c'est mon grand frère d'honneur. il a été là pour moi man xam naa Amady bu dee ba doon màgget dama koy jël rek teg ko sama wet mu nekk man ak jëru waale bu kenn fiir nag noonu la war a demee noonu la war a demee noonu. jërëjëf noonu la war a demee. 후배가 네.